envers les lutteurs ministre mosu ko am kon nag moo tax dañ koy dañ koy saluer ba pare nag euh, mu yokk xar mi karaw parce que ñooy convention bi ba pare promettre nañu ni am dina am appui bu jógee ci état pour wax dëgg yàlla euh, jàppalewuñu ñu jàppale ñu ci tey euh, li nga xam ne tey pour accompagner ñu